Hi guys, hi everyone, you know the vibe, so today you never know the vibe. Sama gars yi comme man je suis you. pour vous faire rire su ma gisee benn affaire boo xamante ne daf ma reetaan fexe ba def vidéo pour reetaan loo leen sama gars yi tey ñaari rappeurs yu mag a mag laa indi entre MC Baba ak Wiz Baba ñaari rappeurs yu mën ñaari rappeurs yoo xamante ni ñu ngi toj internet bi waxuma la ak TikTok bi dañuy xool kan moo mën entre MC Baba ak wisi Baba ngir yalla ku mën wax len mako ci commentaire yi mel len xamna ko de <laughs> di ngeen rewa son kon sama gaay bala vidéo du commencer merci d'aimer la vidéo abonnez-vous voulez faire fàtte yéen zéro spécial promo code 21F la saabu di nga bonus 1 million nee na ko def ci commentaire xam nga ñom ñaan ñepp bu ñuy rap foog ñu tax ay verre kon suma ci wax <laughs> foog ma la sama ay verre donc sama gaay dañuy ñëkke ci MC Baba ñu xol kan moy MC Baba MC Baba Farel à la prod. Eh! Eh, eh, eh. MC Babaye MC Babaye MC Babaye kii mooy MC Baba léegi ñu dem xool Wizi Baba sama gars yi nag da ngeen wax sérieusement kan moo dàq rap su dee Wizi Baba moo dàq rap ngeen wax ko ci commentaire ngeen ne Wizi Baba su dee MC Baba ngeen ne MC Baba man à la fin dinaa leen wax kan moo ma dàq rap si ñoom ñaar Wizi Baba ngi nii day sa kàlla ndax Wizi Baba ak ndel bi te xoolal ñep seen son yi bu ñu dugg dañuy dugg ci ak doole. <laughs> waaw. Wizi Baba eh ah <laughs> eh Wizi Baba eh. pause. <laughs> Baba Baba. ñu Baba après ñu rabu Baba d'accord. in si baaba nee na eh, eh, eh, xaw ma lan la lañ wax noon mais tegu na ci but bi tegu na ci bit bi yee li muy waay neex na daal neex na neex na nañ jàpp ni neex na yee ñu xool la la moo stop MC Baba tamit MC Baba tamit MC Baba yaa mun nag <laughs> léegi ñu xool rabu MC Baba et eh, rabu MC Baba ñu xool ab MC Baba lan lay rab lan lay lan la joxe. MC Baba nee na. mais <laughs> <laughs> MC Baba yi mën na de ñu continuer. bisu baba deewaat na <laughs> ah, xam naa ci li ma jàpp day bëgg wax ni moom moo fi nekk keneen kuy rab ci rab mu moom moo fi nekk daal li ma jàpp ni loolu loolu la wax léegi ñu dem ñu xool Wiz Baba borom ndel bi day sa kala dax eh, MC Baba moo jox ko ñaata MC am na neuf neuf neuf sur dix parce que li def ni yombul xam nga ñëw di rab tegu si bit bi wax lu nice affaire yi après ñëpp di ko coow si TikTok loolu yombul

Bizi baba wane papaye, papaye, ayeyeyeyeye, jikonde. Bizi baba wane papaye, papaye, ayeyeyeyeyeye, nice, nice, nice, teke douti bit bile pou nice kwa, moun, Bizi baba. léegi avant ñoo avant maa jox note Wiz Baba damay damay damay dañuy dem xool rabu rabu rabu Wiz Baba d' accord sama gars yi ñu xool da ngeen di reetaan ndànk nag sama gars yi xam naa yéen a ngi dee. mais Wiz Baba mii. saa kàkà Wiz Baba nee na papa yeye papa yeye papa. barke yàlla Wiz Baba mi ngi may rey Wiz Baba moom nee na. keneen Wiza moom dafa mel moom MC Baba lay classe nee na ko doo dara Baba yooyu Baba nee na ko doo dara keneen kuy rap euh, euh, ci modam moom moo la mën te moom ñàngal na ah ne Wiza Baba jox naa ko 10 sur 10 Wiza Baba 10 sur 10 Wiza Baba moom lay def parce Baba ay soom la ñuy gën a TikTok ay soom la ñuy gën a li ma ko gis TikTok dama ree ba sonn ma ne lii foog ma def si xool ñoom ñaar kan moo léegi dañuy dem concert ñoom ñaar ku gën a yëngal dañuy dañuy dem xool MC Baba concert am nan lay yëngalee MC Baba ngi Hey! <laughs> Eh! Eh! <laughs> sama gars yi lii mooy concert MC Baba léegi dañuy dem xool concert Wiz Baba c'est tëj man Wiz Baba dafa mel mu am flow ëpp ko ay supporter xool Wiz Baba aw Wiz Baba yee <laughs> não sama gars <laughs> yi léegi da ngeen may wax en commentaire entre MC Baba ak Wiz Baba kan moo mën kan moo ëpp flow kan moo dàq rap man moom maa ngi ci Wiz Baba moom Wiz Baba bi su ma dul naa dee <laughs> ah, eh? awo Wiz Baba eh sama gars lii ma nekkoon vidéo bi dama ne lii su ma si demee vidéo bi par di ngeen ree parce di bëgg a dajeeku xam nga parfois da ciy baax nga génn biti def vidéo jël air som you know what I'm ah wala li ma sañse gis ngeen chose yaa ngi nii chose yi moo tas yaakaar bi la rose bi baan bandi baan bi sama gars yi si ba vendredi bii di ñëw wala ba weekend bii di ñëw ñu defaat vidéo